ku internetu Sénégal Buzz 221 mbokk mbokki ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci naqar ak tiis euh, bi nga xamante ni dal na ci li nga xamante ni moo di njabootu lamb seen doom seen frère euh, Moussa Dioum euh, ni ke ni sànq rek la ñu xamal ne suñu borom daal di na koy jël mu doon noonu loo xamante ni nag lu métti la ci li nga xamante ni ñoo di njabootu làmb rawatina ñi nga xamante ni ñoo di famille mi leen koy jaal bu baax a baax a baax ci tiis gi nga xamante ni bokk nañu ko bu baax ñi nga xamante ni ñoo di waa Parcelles Assainies unité 1 ba unité 26 ku wax Moussa Dioum xam ko foofu noonu di Parcelles Assainies di ko jàll bu baax ki nga xamante ni moo di la président Bira moom mi nga xamante ne moo ŋànk li nga xamante ni moo di lamb ji waaye di ko jàllaat bu baax a baax a baax famille lamb suñu frère Moussa Dioum nekkoon nit ku baax nit koo xamante ne nit ku bëri jàmm la amoon li nga xamante ne moo di salaam ak képp koo xamante ne rek yaa ngi woon ci lamb ñu mën ko ko seedeel di ñaanal bu baax a baax a baax suñu borom yërëm ko te jéggal ko te xaaree ko àjjana ci barke Seydina Muhammad mbokk yi di ñëw di leen jox beneen dig daje incha allah.